que xam oui ou no mais le gros gros gros problème c'est dans les huit mois la c'est dans les huit mois à venir Bachir. waaw soxna Maria xam nga effectivement c'est vrai que on peut être d'accord avec le doyen euh, euh sur le fait que c'est une décision qu'on attendait depuis longtemps. Mm -hmm. mais aussi dafa amoon beneen conséquence bu nekkoon si ñaar yooyu ndaxte man damay toog toujours ma ne situation bii ñu toll. j'ai le sentiment ko opposition moo ci pousse Macky parce que fàttaliku leen dañoo fal Macky Sall. mars 2019 mois de juin 2019 on pose la question sur la candidature en 2024. bien sûr. kon en posant cette question. pré en parenthèse. oui je pas bés. je crois qu'il m'écoute. bi ñu vote bi ñu bi. Mhm. le lendemain. Mm-hmm. le lendemain. Mm-hmm. Euh, on, on était presque sûr mm-hmm. que ce qui arrive là devait Mais arriver. moi j'étais comme vous. moi j'étais comme vous. Bien 2016 laa leen ne constitution bii ma gis ubbiwul palanteer buntu la ubbi 2024. malgré que ñoom waa APR ñu ngi doon naan ñu ngi compter mandat bii. donc déjà on peut ouvrir une parenthèse là-dessus. aujourd'hui on a un débat particulier moo di nii ña ne woon démb Macky peut être ñoo ne tey mun ta nekk ña ne woon démb Macky fait son deuxième et dernier mandat ñoo nekk di ñu wax tey jii nii Macky peut être moo tax toujours ma naan leen quand on posera la question éthique posons-la pour tout le monde mmh, bien sûr. on ne pas la poser uniquement si kàddu Macky Sall mhm. nañ ko poser ñëpp ndaxte tey jii nga jël Ousmane ko mi professeur tudd toog na fi mu wax ni constitution bi article deux vingt sept bi ni ñu ko bindee Macky mën na nekk candidat deux mille vingt mm-hmm. nga jël Barthélémy Dias mu wax li ni mel. nga jël des juristes professeur Babacar Gueye professeur Zouanke ba ci professeur Ngouda Mboup bindoon na ko en 2017. Mm-hmm. ni constitution ni constitution bi ni ñu ko bindee sa permettait am Macky de faire sept plus cinq plus cinq. Mm-hmm. kon tey ñooñu bu ñu wëlbatikoo ne mënta nekk. kon la question éthique elle est pour tout le monde. elle est pour tout mm-hmm. c'est-à-dire que je ne voudrais pas qu'on pose cette question uniquement si Macky Sall wax nañu ko wala wax. bien sûr mm-hmm. nañ ko ko poser pour tout le monde. Mm-hmm. et on verra que ceux qui nous ont dit hier que Macky ne pouvait pas être handicap candidat sont en de nous dire aujourd'hui que c'est possible. et ceux qui nous avaient dit hier que c'était pas possible sont en train de nous que c'est possible. parce tout simplement ñoom itam am na fu ñu bopp. léegi voilà donc loolu mooy benn. maintenant nag mais ñun fan lañ jëm ak. bu boobaa ah voilà justement fan lañ jëm c'est ça la bonne question bu boobaa. parce que aussi ñun suñu suñu suñu euh, suñu fa par parlo bi lu yàqu Sénégal moo ko yàq. bu boobaa bu boobaa ndaxte tey jii nii xam nga toujours moo wax leen ni la question elle est à trois niveaux chez moi. elle est politique. elle est juridique et elle est éthique. donc politique bi ndegam Barthélemy Dias moo taxaw Sénégalais yëpp di ko seetaan mu ne ñun xamoon nañ ni Ablaye Wade avait droit à une candidature bañ koy xeex. donc la question politique pour moi elle est parce que ñoom ñi ko doon xeex xamoon nañ ni c'était valable. c'était valable. n'est-ce pas. et puis il disait que même c'était pas le même contexte. aussi voilà mais au-delà bi loolay benn. donc la question juridique. moom professeur mii mës naa ko de seetaan déglu ko mu ne la question n'est pas juridique parce que juridiquement Macky a droit à être candidat moom mii professeur mës naa gis mu c'est la deuxième fois nga nga kii ko non non c'est parce que il l'a dit non il l'a dit maintenant il a il amène la question sur un autre terrain c'est la question morale mm-hmm. je suis d'accord avec lui mais maintenant foofu laa leen naan bu ñu yóbbee question bi sur la morale dañ fa yóbbu ñëpp ok là aussi je. voilà dañ fa yóbbu ñëpp c'est-à-dire que bu ñu seppi benn makis Sall. bien sûr mbir mi ñu ne moo ko waxoon te ñii ko waxoon wax leneen. Mhm. ñu toog te dara fekku leen ci. Mhm. bu boobaa nag mu ñëw nag si ñett mooy lu ñuy xaar tey mooy premier niveau bi parce que aujourd'hui moi je dis la question elle est à trois niveaux benn mooy ce que Macky Sall va être candidat ou ne le sera tey si ngoon dinañ yeeweeku insha allah dinañ xam si lu ñu toog. Mhm. deuxième question bi mooy. ñun ñii ñëpp ku fi toog ku fi wax sa xalaat nga joxe. mais kenn mooy jël décision mu tudd conseil constitutionnel. et le jour où le conseil constitutionnel prendra une décision ñëpp a ciy tënku. te ma jox la firnde élection 2022 bii professeur di tudd sànq Barthélémy Diaz bu ñu toppoon loi électorale du nekk député Dakar parce que il n'avait pas respecté la parité à Dakar. ñu dem pour rectifier ko DGE bañ ñu dem conseil constitutionnel conseil constitutionnel nangul leen ko disons-nous la vérité. Mmh. leur liste n'était pas paritaire. Mmh. et dans le code électoral on di une liste non paritaire est rejetée. Mmh. nga ñëw Benno Bokk Yaakaar ñu dem seen liste mu am absence de parité sur les proportionnels xam nga doublon xam nga absence de parité c'était signe de rejet nga ñëw ci Yewwi Askan Wi. ñu am doublon ci seen liste titulaire ak majoritaire c'était signe de rejet mais bañ demee conseil constitutionnel le conseil constitutionnel wax mu ne xaaju liste bi nangul leen ko kon quand le conseil constitutionnel aura décidé du Maria du professeur du Albert du Camara du Bachir du kenn ce sera la décision donc du jël xeex du jël xuloo du très bien mu des nag mu des nag mu des nag merci beaucoup mu des nag ñetteelu niveau bi moo di ñun Sénégalais ce que nous savons régler par les urnes c'est ça ce que nous savons réglé par les urnes le conseil constitutionnel a validé la candidature de Wade les citoyens ont invalidé le mandat de Wade. c'est tout. kon nag c'est-à-dire que. sans tambour ni trompette man pour man je le dis. je le répète. moo tax ma on n'a pas besoin de passer par cage. mort manifestant dégâts arrestation. Ah. pour régler une question que la maturité du peuple sénégalais s'est réglée par. les jours Maria ñun Sénégal fii dama bokk si ñu gëm ni kenn mënul sax ci élection. man damaa bokk suñu ko gëm damaa bokk suñu gëm ni Sénégal fii kenn mënu fee sàcc élection